Euh, salaamaaleykum Saint-Louis salaamaaleykum internet Saint-Louis TV ñu ngi seen cinquième numéro Dekkil rab tey Dekkil rab dañuy dalal benn couche Saint-Louisien la mais ñu ngi évoluer à Dakar euh, nekk manager si Fata aussi teg benn label couche production di jàppale jeunes yi ci seen ay évolution musicale di teg ay festival ak lépp euh, dañ koy dalal tey muy couche pro couche maa ngi lay siyaar waaw ñu ngi lay siyaar lépp tawfeex. yéen kontaan naa ci dalal bi. yéen woon ak euh, dëkk rap euh, silaan naa ci benn ñaar mais bon xam naa yaa ngi ci job bu kawe quoi fi mu ngi nooy courage mais. yéen woon ah. tey ñu doon décrire Cous Pro kan mooy Cous wax Saint-Louisien yi kan mooy Cous Pro. en fait Cous Production. Euh, non Cous en tant toi. kan mooy Cous ah, mooy Omar Sow. tu sais en général bon bu fekkee ni yow amoo ay frère ñi ngay àndal say cousin lañ. dañ lay woowee cousin quoi cousin cousin ba mu doon nekk cousin quoi loolu moo siiw nii. tu vois mais man maay cousin dëkk Ndar juddoo fii bon yow xam nga tu vois peut être ñi xamul ñoo leen leen wax leen doon Ndar lañ juddoo. Mhm. yaroo fi màggee fi jànge fi ba après defee nañu dem Dakar jàngi. Après, malheureusement, heureusement, nous sommes dans les cultures urbaines. Après, vraiment, un acteur culturel carrément. def une une formation au niveau international. Il dimbali a une euh, licence en management d'événementiel et de production tu vois après les gars sont euh, télé en général parce que euh, auraient fait auraient télé tu vois télé privé je veux dire commencé commencé ubbi mhm. après on a DVS benn trois ans 4 ans avec Ecofili avec nekk ci site après TFM tu vois

en fait man euh, jàng moom ma yóbbu woon Dakar en fait après nga mujj fa am métier. kon nga teel quitté Saint-Louis. bon troisième xam nga ne. troisième tax ko teel. oui tax ko teel tax ko teel quoi fi laa jàngee alxuraan fi laa jàngee CM Aril Guiabert. fan nga dëkk ci Saint-Louis. jàkkee ñingate. ci biir jàkkee laa dëkk diwaan. du coup man xam nañu kon yow yaa ngi au cœur au cœur Saint-Louis law na. man Saint-Louisien laa. 100 pour cent fi leen juddoo yaram suñu papa ak suñu yaay fi leen juddoo yaram du coup. Ah, avec, avec Kirma. Du coup, Hamem de Bar, Hamem de Bar, c'est lui en fait. C'est pas ça en fait le truc. Ok, mais sur le marchand, il y a que Fata. D'autant plus que moom Saint-Louisien là, yo Saint-Louisien que tu aussi nee ay cousin qui yéen ñaar une relation nous ñu demee. en fait pourtant sama rakk la en fait sama mag sama yaay bokk ndey

mais jàng ma ñu de woon ci biti je suis aussi directement ok expérience de culture urbaine aussi tamit télévision 2S Nous aussi TFM Jack bu aussi gis avons ngeen label euh, à Dakar ngay job ak euh, Mass pour Black Diamonds euh, expliquez nous un peu si vous voulez, volet quoi transition entre 2S TFM ba ci sa label bi nga teg sa propre label. bon en fait euh, xam nga jàng aussi moo lay moo lay moo lay moo jox benn métier du quoi bon bu ñu au début nekk manager après tu es management il y a les cultures de la musique y a les y a les métiers de la musique en fait. Mhm. ci métier de la musique yooyu tu vas en choisir euh, producteur. Mhm. le chargé de production ak euh, régisseur. Mhm. léegi yooyu non yëpp métiers yooyu après dafa nekkoon métier yoo technique en ko scène quoi scène bi moo ko quoi à la base les bi nga demee niveau dafa am ay télé privé yu génn ils xam dañuy soxla parce que ils sont télé privés pour faire des dañuy def événementiel. léegi dañuy soxla euh, chargé de production dañuy soxla régisseur dañuy soxla aussi un management ci yenn euh, émission yi léegi bon ñu ngi commencé avec ak 2STV euh, ak Pop Feeling nous proposer proposé leen émission bi ñu leen proposé émission bi après ñoom ils ont vu que ni bon on est utile là-dessus ñu liggéey ensemble léegi bi ñu demee ba benn niveau bi après la ñu arrêté 2S dem jàngi si lañ mooy mooy tax ñu demoon en Europe dem Suède def au moins 18 mois jàng suñu régie général en anglo-saxon so bi ñu dem see ci la ñu ñëw euh, liggéey TFM ba 2014 ci la TFM ci la commencé liggéey TFM en fait tu vois mm-hmm. après

bon ni dem à l'étranger ñu nek Dakar mujj njaboot fixe xam nga mais bon comme que man ak Fata pratiquement on bouge trop ñu gëna bouger parce que bon tantôt ñu ngi tant tantôt ñu ngi short parce que on est dans la musique carrément. man jëma doon ñëw Saint-Louis lu bëri. après je me suis dit mais attends li dafa war nek nekk affaire bu ñu jëriñ ñun ñëpp quoi ma topp course production bi wutal ko Ninea wutal ko statut top, ko ba mu nekk un label de production ñu bind ben projet de festival bu ànd ak euh, vraiment une bonne histoire bo xamné bon am nañu idée yu am solo ci euh, jeunesse bi ñu tek ko buñ ko tégué aussi def nañ fi pas mal de trucs mais bi gëna am solo moy actuellement ni ni ni ni festival Saint-Louis Urban Fest parce que bon une musique urbaine la ñu maîtriser moom la ñu gën xam moom ñu mën ñu délo ko exactement li ñu moom bi ñu commencé loolu aussi ba légui

bon mi ngi nekk 4 quatrième édition ren parce que 2016 on avons commencé. Mhm. carrément festival quoi tu vois. Nous sommes festival 2016 on avons commencé 16 17 18 19 mais 4ème édition Ok, ok sommes ngi 4ème édition. voilà euh, ren 4 quatrième édition bi nan nga koy préparé avec les artistes nga fi indi. bon quatrième édition nous avons fait ko ci bëgg def exactement euh, ñu ngi ci panel. Mhm pour rassembler exactement les nga acteurs culturels directs et nga xamné mm-hmm. des fois me jël acteurs culturels yo xamné ay managers lañu ay producteurs affaires mm-hmm. mais si tu prends les acteurs culturels directs c'est-à-dire les rappeurs les concernés. Mm-hmm. nga laaj leen lan mooy le problème. mais c'était un panel qu'on a fait le lundi à maison du quartier Diamagan. et ils ont ils ont donné pas mal de de de de, de problèmes quoi nous nous jànkonteel ñoom après, on avait, euh, le lendemain, on a commencé une série de formations au moins de 4-5 jours euh, à l'Institut français. on va le faire qui euh, sont mooy seen outil yi première bi nga xam ni musique surtout musique urbaine bi nga xam ni soo amulee beat sax mën nga rap Soit amulee instrument sax mën nga rap parce que rap moom ci mm-hmm. bats lay nekk quoi mm-hmm. ñu xamal leen lan mooy seen instrument bi jëkk jàngal leen ko quoi ba ñu on am maîtrise li ñuy parce que aussi il faut qu'on dise la vérité la musique ne sourit pas tout le monde. Hein. da ngay ñëpp dañuy defandoo musique mais kenn ciy génn wala ñaar mais ñeneen ñi nga xam ñu ngi si doon jàpp instant boobu di ko gëm génnu ci génnuñ ci bu ñu genre métier yi ñu nii ça les arrange parce que boo amulee métier à benn niveau bi tu t'en sors pas loolu mooy loolu mooy loolu mooy valeuru formation bi ñuy def ñu nii nii xam seen métier. ba pare amaale métier. ok c'est important. advice fresh ngay am foofu non plus connu sous le nom de Fresh Boy artiste rappeur Mohamed xamante qui ci ville de Saint-Louis. aussi tamit euh, étudiant. Oui, urban Platform. plateforme Nous avons formation il y a de cela trois jours Nous avons une formation. Nous ci une di formation Ben affaire rek la ñu d'abord et avant tout affaire bu nice la affaire bu ñuy apporter dara ñun artistes c'est artistes de ville de Saint-Louis. début formation avec parce que def nañ théorie tamit def pratique pratique bi jàngal câblage Nous avons et tout et tout jàngal nañ micro Nous avons aussi ci côté artiste comportement artiste. par rapport aux autres artistes parce que pour man artiste artiste la rek parce que artiste mënul xam loo xamante ni ñeneen ñi xamuñu ko est-ce que ma la wax nit ki loo bëri xam-xam tamit day baax côté hip hop bi parce que xam-xam du doy même boo jàngee figure de style si àdduna bi yëpp boo gisee ku ñëw ku ñëw ne la dama lay jàngal nan technique gu bind ñool ma jàngal la figure de style da ngay ñëw jàngaat boo gisee ku ñëw wan la nela la lan wax la lan mooy micro nan la ñuy téye micro da ngay ñëw jàngaat bu nit ñooy tamit di la wan nan la ñuy câbler seen yow artiste bi nga xam nan la sa son di jaar ba génn tamit heure bii maa ngi ñëw studio laa war def xam son yi ñuy dugal ñun fan lay jaar ak yan lu seen la ñu koy defarale ñu ñuy initier daal ci musique en grosso modo affaire bi affaire bu nice la affaire bu nice la lu amal njariñ artistes la tamit te maa ngi lancé appel si sama morom artistes yi ñi dañu nous, ak ñi tout ñu def le tout ba genre formation yi bu amatee waaw ñu présenter aussi dina leen yokkal dara Bonsoir, je m'appelle Moussa Nian, je suis technicien de l'Institut français de Saint-Louis. Bon là, ce sont des jeunes, euh, ce sont surtout des musiciens, des rappeurs qui n'ont jamais euh, connu c'était quoi la technique, qui n'ont pas, qui n'ont pas aussi une grande expérience de la scène. Bon, là, on les forme en tant que. On les forme un peu sur la technique et en même temps, on, les apprend comment se tenir euh, sur la scène. Sur... D'une formation, ça, se passe en 3-4 jours comme ça. C'est une prise en main en quelque sorte. C'est pas une formation comme euh, une grande formation pour les techniciens, mais on les initie il faut les initier à, la technique. Ils connaissaient quoi la technique. Il faut qu'ils savent comment attraper un micro, comment et demain pour mieux s'en servir quoi. Non, ça va, là, là, on a euh, des niveaux un peu différents. Bon, là, on essaie de les mettre à niveau et tout. Là, demain, on va continuer, on va faire carrément du studio. Ouais, on va créer des beats, euh, faire des prises de son et des mixages en même temps. En tant que technicien, j'amène euh, ma pierre à l'édifice. Ça veut dire quoi Les jeunes, ils ont besoin d'être formés. Nous, on a fait notre temps déjà. Ouais, on a fait notre temps et puis tout ce qu'on a su, on l'a su, euh, on l'a bien appris et tout. Maintenant, c'est à nous de donner ça aux jeunes pour former euh, les jeunes euh, de demain. Après aussi, il y a la, scène de l'Institut français mhm. pour les jeunes. on l'appelle carrément la nuit de l'espoir. là, mhm. le, vendredi, 25 5 juillet. Il n'y a que des jeunes. Tu vois, il y a un album, il y underground depuis 4 ans, nous avons joué ici, CCF, sur une plateforme professionnelle, nous nous nous exprimer. C'est important. Parce que le festival, nous avons fait des punks, nous avons fait des rap. Dem. Mais il faut que nous fassions une innovation. Cette fois-ci, c'est de le boire, nous avons fait nous avons fait des concerts, nous avons fait des scènes internationales, nous avons fait jouer. Nous avons fait des scènes, nous avons Bon, cette année-ci, on a fait au moins 20 plus, comme ça, mon Magalem, quoi. Et puis bon, lui, il connaît exactement les concours. jour le jeu, le mais Il va jouer deux jours. Il va jouer Magal Boy, euh, euh, vendredi. Uh-huh. Mais il fait son show, donc, vraiment. Euh, à la place Abdoulaye Wade le samedi. le samedi 6 incha allah. loolu diwaan ji ak kan la am comme guest star. bon ñun kooku. bi nga xam ne bon chaque décembre mi ngi euh, produire benn festival bu hip hop. xam nga bëccëgu ndar kàmb. tu vois ak euh, rap soldiers bi nga xam ni. Rosso Taïdji, Rosso Sénégal c'est MCU c'est grâce à eux c'est parce que y a des gens qui luttent pour le hip hop ñi xam son frère Bams aussi Yeah, Bams Ils dañu affaire nice ba euh, ñu le fait que c'est un truc c'est un truc régional pour Ndar

Euh, on a aussi Omzo Dala. Yeah, Omzo, Omzo Dala. lui, il est, il est amoureux de, la ville de Saint-Louis. En fait. yeah. Si je le Il mais grand, demain, demain. Tu vois, bon, relation avec boy hip-hop, on avait, on, avait, on avait des émissions hip-hop de Dakar et qu'on était tout le temps ensemble. Par exemple, l'année dernière, quand j'ai dit, mais Cannabis Boy, le festival de

fond des cultures urbaines jàppale lan la ci ci ci euh, fay artiste mm-hmm. mais bi lay jàppalee may fay artiste ba affaire yi ay novembre lay génn fekk yow festival nga ba tëdd nelaw xam nga waaw waay mu nekk mu nekk loo xam ne ba nga koy sax bind ci rapport yi mais il faut que le truc arrive tôt pour que les gens s'en sortent tu vois ren nag xoola boolewul na sax ci affaire bi quoi mais bon sant yàlla tu vois festival bi fi mu toll nii nii nii nii ñu nag waa Ndar kese la luñ ci am cat Euh, bon ça yi euh, ni comme problème du hip hop Saint-Louis ni ni ni la est-ce que tu nga tay pour gagner ay boys Dakar ni def foofu di pressé. je man nak envie Dakar quoi. dama am envie ni tok fi mm-hmm. défar suñu ben nit ñi di ñu di ñu jëlee fii di ñu yóbbu di ñu fay. dans le Sénégal yëpp ba international. té loolu man gëm naa ko te dinañ ko may té loolu mooy objectif bi ñu toog fi defar ko ba mu baax ñu koy affaire musique musique la y a l'internet y a les télé y a tu vois lépp dafay bouger mais après ñoom ñoo lay soxla ñun am na fi am ay suñu ay tenor ñu nekk fi gars yi di la soxla ngay dem di jouer ji di ñaaw.

jërëjëf kon di leen jox dig daje vendredi samedi vendredi institut français samedi place Ablaye Wade euh, seen festival Saint-Louis Urban Fest